jàmbaari Sénégal ñoo lànk ñoo bañ góor jigéen doon Sénégal ñoo lànk ñoo bañ kenn du ñu delloo ci bu mondial ñoo lànk ñoo bañ ceeb dafa seer diwlin dafa seer café dafa seer suukar dafa seer Sénégal yi dañoo soñ waa ji dëkk Fatick Fatick ngeen réew mi waa ji dëkk Fatick Fatick ngeen réew mi wateel moo fees yaa indi góor jigéen wateel moo fees yaa yokku ceeb yokku naan leen jëlee askan wi ne ak Abdoulaye Wade ak président Ousmane Sonko pan kati Ousmane Sonko jàmbaari Sénégal ñoo lànk ñoo bañ góor jigéen doon Sénégal ñoo lànk ñoo bañ kenn du ñu delloo ci bu moom jaam ñoo lànk ñoo bañ ceeb dafa seer dëwlin dafa seer café dafa fes yaa indi góor jigéen waxoon moo fes yaa yokku ceeb yokku naan leen jëlee askan wi la ak Abdoulaye Wade ak président Ousmane Sonko